seen jarbaat seen dëkkandoo maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di leen wax ni euh, bon kontaan naa kontaan naa ci invitation bi yéen waa Sénégal wax nga dëgg ma ak yow depuis mille dix neuf ah. donc yàgg na yàggul. donc maa ngi leen nuyuwaat bu baax di la wax dalal ak jàmm. Hmm. comme ci ñaan yi nga doon ñaan mën naa wax sax euh, antu la. donc euh, ñu jëm tout droit ci concert bi ngi def débriefing du concert bu Iba bi 500 euh, places capacité 5000 places du moins 5000 places capacité nga feesal ko waa Medina ñëw wuyu si ak yeneen gox ñëw wuyu si la nga def benn spectacle boo xam ne franchement xaaroon lañ ko te def nga ko ban état d'esprit nga toll instant bi. kontaan. kontaan rek ni may waxee ak yow ni jëlewuma ci leneen lu dul ma mais aussi gën a fas jom xam ni tamit loolu jàll na quoi li ci des mooy gën a liggéey li ci des mooy gën a gën a joxaat cër suma soppee yi suma fans yi ñi nga xam ne man sii Sidy Diop suma jëmm ji jaral na leen lu nekk li ci des mooy ma gën leen a fonk gën leen a téye te gën a liggéey mais daa d'esprit bi ma toll mooy kontaan na te it xam naa ni bon liggéey feeñ na quoi

waaw parce que concert la woon donc concert moom ku ne xam na ni boo koy def il faut que nga def show ak public bi te man ku ne xam na ni Sidy Diop euh, dama bëgg ambiance dama dama dama mën jouer ak suma public ndaxte duma ko sax tuddee public man ak ñoom famille la léegi parce que kuy bàyyi yitteem nit ñi juge nañ ba ba Mauritanie Gambie Koungheul Kaolack Tivaouane Dakar fépp foo xalaat nit ñi jugee nañu fa ñëw ngir dooleel suma jëmm ji sii di famille bu géejawaay may nuy suma mag ju baax a baax muy Jinda Couture chéri ji bi jàpp na ci bu baax a baax waa géejawaay Pikine ñoom Jules Badiane Pawsi suma rakk xama pikin Pikine gépp ñu AS Pikine ma leen di nuyuwaale bu baax a baax a baax waa Tëngéej lébu gi Bargny gaa yi bàyyi seen di te ñëw fukki penc yeeg ñaar Ngor Yoof Wakaam xam nga nit ñi jugee fu nekk bàyyi seen it mamel xam nga Cambérène fépp la nit ñi jugee Pikine Parcelles Grand Yoff Médina gis nga keroog ni ñu fa mel. donc bon kon kon kon kon loolu euh, du ma ci am leneen lu dul contentement parce que woote nag yomb na mais nit ñi ñëw moo jafe. donc li daf may wane ni rek sénégalais yi bëgg nañ ma nattaat naa sama bopp envers sénégalais yi te li ma ci jàngaat mooy bëgg nañu ma li ci des nag mooy li ma la wax léegi. mooy man commencé gu ma sax man man commencé gu ma. cinq ans de quatre ans la. quatre ans mais commencé gu ma xamal tama ne commencé gu ma. Mhm. parce que li des ci suma carrière moo ëpp fuuf li ma weesu quatre ans rek laa defagum. Mhm. donc ñun suñu papa yi ñu ngi ñi ngi ci ay quarante ans donc ñu ngi ci ay quarante ans de carrière donc man man commencé gu ma laa mën a wax. suñu ay grand frère ñi ngi fi ñii def nañ vingt cinq ans ñii vingt trois ans donc man commencé ma mais nag cin bu naree neex bu baxee xeeñ lii ça montre que ni sénégalais yi bëgg nañ ma donc dama war a góorgóorlu gën a concentré wu ci sama liggéey euh, gën a joxaat cër public bi gën a joxaat cër sénégalais yi ñu xam ni sii di seen doom la seen jarbaat la Sidy du Ghanéen du du du du du du Togolais Sidy sénégalais la. sama carte d'identité sénégalais moo ci nekk élection yi fii laay voté. donc ñu xam ne sa seen doom laa ñu gënuma ñaanal ko te xam ne musique gu Sénégal mooy gagné waaw. alors ñu dem ci concert bi. Mm-hmm. déjà sa entrée da ñëw déjà ñu sa limousine nga ñëw. entrée bi ñëpp mm-hmm. doon xaar man xaaroon naa lu nekk parce que mm-hmm. stade euh, Alassane Djigo dañ la gis woon nga yëg fas boobu fas nga duggee woon euh, bii xaaroon nañu lu nekk pourquoi Casa de Papel waaw waa bon loolu moom suñu suñu suñu idée yi suñu idée euh, directeur la. artistique mhm. moom moo ko moom moo ko kii Matar Diop Subatel. ah Matar directeur artistique bi bés la. donc loolu Matar Diop Subatel moo moo moo defar idée bi moo DG bi Souley Awalaay. Mhm. may nuyuwaale aussi suñu jabar Kia mi nga xam ne dafa jàpp ci bis bi bu baax a baax a baax ndax yi ngay gis yëpp ci kaw scène bi euh, lépp moom la. Mm-hmm. donc ñu ngi koy nuyuwaale bu baax borom Amérique ñoom Matar man mii di wax ak surprise laa ci am waa ci ci ci veille bi laay doog a xam ni lii laa war a sol duggee ko mm-hmm. ndax man mii sax surprise lañ ma ko defal mm-hmm. donc mu doon dugg si boo xam ne bon c'est une première fois ci ci ci ci ci histoire musique sénégalaise àdduna noonu la rek innové la suba aussi bu xewee dañuy jéem a defaat lenn loo xam ne bu ñu ko defee sénégalais yi bëgg lenn loo xam ne bu ñu ko defee dina dina marqué ci bopp sénégalais yi parce que Casa de Papel moom ku ne xam ne ni film boobu dafa toj àdduna dafa toj euh, Netflix donc wër wër wër wër wër àdduna quoi ñu toog xam suñu xel nekk ci ñu ne pourquoi pas ñu defi ñu def même chose mais man ma nekk ci biir nit ñi te kenn du ko xam te dugg naa ci nit ñi nekk ci ñoom lu yàgg kenn xàmmeewu ma moo tax ma nekk na ci ginnaaw jékki-jékki ñu ibbil ma ma dugg fi mu nekk entre boo xam ne sénégalais yëpp dañ ko apprécier mhm. may may kontaanaat bu baax a baax a baax a baax ci équipe bi quoi suba teel. Mhm. mais expliqué wuñ ne exactement lu tax ñu choisir euh, costume mu Casa de Papel. bon li tax ñu kii mooy loolu la parce que xam nañ ni déjà loolu bu ñu ko solee ñun ñëpp dugg. waaw seen xel ci li muy njëkk dem rek. mooy Casa de Papel parce que loolu ñëpp a ko suivre. parce que ñu bëri ñu ngi naan contenu film bi braquage banque. Ah, parce que boo seetloo ñu ngi ñu ngi yor ñun ñëpp ay pistolet ñun ñëpp ñu ngi solo ñoom li ñu solo def masque. automatiquement boo ko gisee que mu nekk yow ku mu ku mu munti nekk boo gisee sa xel ci li muy njëkk dem rek mooy Casa de Papel. mais loolu lan lay refléter sa carrière. bon li ma bon li ma ci yi ñu ci bëggoon a wane bari na parce que innové nañu innové nañu def nañ loo xam arrière pensée genre nga wane imposé wu Casa de Papel ay mhm. borom xel lañ. waaw hmm. non waa si si si loolu yëpp loolu yëpp xam nga moo tax ma gërëm léegi équipe bi parce que loolu yëpp day ça montre que ni gars yi ñi ngi xalaat parce que Casa de Papel moom boo ko tuddee sa xel mi njëkk dem ko ñu dañoo mën a xalaat ay borom xel lañu. Mhm. donc lii tamit day wane ni suma labeel bi ma bokk muy Subatel ay borom xel lañ dañu mën a xalaat. Mhm. parce que gis nga fi ñu xalaatee ba pare def ci biir ànduma benn sécurité ñu ne ma doxal kenn du la xàmmee. ma jël risque bi ànd ak ñoom yor sama pistolet comme ñoom nekk ci rang bi di dox. donc mm-hmm. kenn xàmmewul kenn parce que waa Casa de Papel aussi dañ daan braqué buñ génnee duggaat ci dëkk bi ci suba si te kenn du leen xàmmee. Mm-hmm. moo tax man tamit ma nekk ci ñoom nekk ci biir nit ñi kenn xàmmeewu ma ba ni may génnee ci kanam quoi. Mm-hmm. est am nga ci am naa ci retour yu bari. waaw am naa ci retour yu bari bari bari ñu bari apprécier nañ ko ñu bari woo nañu ma ñu bari ñu bari xam nga gis nañ ni def naa benn euh, benn innovation. donc loolu laa ci jublu woon quoi. te lépp luñ ci jublu rek en grosso modo c'était juste pour bégal soppe yi pour impressionner leen un peu pour pour musique Sénégal ko quoi ba ah. beneen conseil doo indi squid game. ah <laughs> mën na mën na mën na nekk de boobu tamit xam nga instant yi moo xew. moo xew waaw. <laughs> kon daal da ngay contextualiser sa musique ak li sénégalais. lu mu laaj rek monde bi yëpp lu mu lu mu laaj rek lépp lu ñu gis ci monde bi rek pare naa pour indil leen ko. parce que benn c'est bien réfléchi lu tax ma laaj la ko parce que euh, kenn ku amul suñu na xamul suñu làkk xamul dara. bu mhm. gisee costume bi rek day intéressé wu ci. ci ci ci kii bi xool day day dugg. Mm-hmm. alors bu ñu jàllee ci loolu ci show bi Sidi Diop ak show moom loolu moom tàmm nañ ko gis nañ ko mm-hmm. concert lu mu gën a ndaw ndaw da ngay joxe da ngay joxe mm-hmm. lépp loo am mais set dama gis sa directeur artistique mu ne sept morceaux ngeen répété pour jouer ko jour boobu noonu est-ce que pour concert bu doy noonu sept morceaux ça suffisait est que doyoon na waaw euh, parce que daf ci am yeneen morceaux yoo xam ne dañ ko dencaloon dañ ko dencaloon suñu invité yi mm. parce que boo gisee Bastion ñëw na ñëw na mm. Ngaaka Blindé ñëw na donc mën nañu wax ne sax dix morceaux la parce que def ci am yeneen morceaux yoo xam ne dañ ko dencaloon pour suñu invité yi loolu la quoi mais mais mais di moom bu dugg see ci concert def benn morceau rek da ngay commencer sentir ni xam nga ñii xam nga liñ naan bu fi yemoon sax neex man sama tëll rek bu ma ñëwee dama lay jox loo xam ne bu fa yemoon sax day neex mm-hmm. waaw alors complicité yaa ngi koy wax sànq bas ñoom ñëpp ñëw nañu wuy si la. Mhm. complicité entre vous euh, suba teel euh, artistes yi fa nekk yëpp képp ku xewle keneen ki day. on est des frères. Mhm. c'est la même famille moo tax ñun ñëpp ay frères lañu ndax bu dul sax suba teel dañuy gisante dañuy déggante dañuy xamante balaa suba teel la ñu xamante donc fii moom sotti ci ak def ci la. Mhm. ni ma xewlee nii ñoom ñëpp gisoo ñu ñëw jàpp ci def ci seen doole. ëllëg aussi Bass Thioung mi ngi waajal show bu mag le premier janvier incha allah grand théâtre ñun ñëpp fu mu toll ni noonu la koy waajee pour dem dooleel ko grand théâtre parce que famille la mhm. ka mu nekk naqar ka mu nekk bànneex ñun ñëpp ku ci xewle démb gis nga fi kër gi ku fi xewle Omaro xama bu xewle boobu démb da ngay gis label bi ñëpp ñëw parce que ñun noonu la ñu àndee ñu ci musique dañuy ànd ànd boo xam ne ku xewle rek ñëpp dañuy mobiliser wu ñëw jàppale la quoi mhm. c'est une famille maintenant mhm. euh, Mhm. boobu tamit am na polémique. Mhm. t-shirt bi euh, waxul Cheikh Ibrahima Fall nga si bind. Mhm. Hmm? wala est-ce que xamoon nga ko. waxal la laa ci bind doom xaw ma genre yooyu noonu. mooy bind gisaat de. ah bon li nga bi déjà. pourquoi nga sol t-shirt t-shirt la woon rek. waaw message bi est-ce que dooñu ko waxaat. non non parce que jour boobu noonu temps bi mayuñu woon ñu taxaw lépp lépp di ko communiquer. dañ jëloon lépp. dañ jëloon lépp bind ko ci t-shirt yi ku bëgg a gis mais mais li ma doon <laughs> expliqué li ma doon expliqué yëpp mi ngi ci t-shirt yi xam ma mënu ma toog fii di ko expliqué waat parce que expliqué wu ma ko ci concert bi dama leen ne tey bisu woy la lépp lu ma war a expliqué rek mi ngi ci t-shirt bi mais nga ci bind ay message la woon rek waaw message bi dañ ko yi nañ dem liir ko ci t-shirt yi parce que loolu la ma sama producteur sant bàyyil gars yi dem liir ko ci t-shirt yi donc je préfère bien ñu dem lire t bi da nga am kooku adresse da nga doon lancer ay pic. non non non même pas ay pic taluma loolu man góor laa nag te gentleman laa taluma lancer kenn ay pic kooku du man. Mhm. waaye man góor laa quoi. Mhm. damay liggéey. te li ma def nii li may def nii laajul laajul perte temps quoi temps bi may perte di ko lancer ay pic ma dem studio liggéey moo ma ko gënal. Mhm. wax dëgg yàlla. kon t-shirt dañ la ko jox rek nga sol ko. dañ ma ko jox rek ma sol ko. laa jëfee dañu ma jox rek ma sol message yi ma ci waroon wax yëpp nag mi ngi ci t-shirt yi. Mhm. ku bëgg na ngay dem nga xool t-shirt yi. te doon wax ngi ci na monté yëpp <laughs> dinaa yeneen message sax nga yóbbu. yaa jeex na <laughs> mi ngi ci biir néeg bi dinaa la jox yeneen t-shirt nga yóbbu monté waale. monté waale. mais daal du dara. non non non kooku du man kooku du am na ñu muy gaaruwaale. taluma ko sax barki Serigne Saliou Mbacke taluma ko sax. Mhm. man sama liggéey laa gën a tal ka ay gaaruwaale parce que gaaruwaale yoo xam du sax pour jigéen waxuma la ak pour góor. kooku du man quoi man suma liggéey laa tal sama fan si may béggee ak ñi nga xam ni jaral naa leen ñu bàyyi seen yitte di ñëw di ma fekk fu nekk pour ma bégal leen. Mhm. ñooñu laa gën a tal pression boobu rek nii dafa dafa diis ci man. le fait que ma xam ne man mii am naa soppe yu bari yu ma bëgg. ñii di xuloo ñii di xeex ñii di jooy ñii di la vocal ñii di la woo di jooy nga xam ne ñii dañu laa bëgg te yàlla rek tax sa ay moromu yaay sa ay moromu papa di la ñaanal. Mm-hmm. xam nga xam ne ñii dañu la bëgg te yàlla rek tax sa ay xaritu yaay sa ay xaritu papa ñëpp di la jàppale saa yi rek baatin donc man ñooñu laa gën a tal quoi. la waaw non non ñooñu laa gën a tal noonu nu ma leen béggalee mm-hmm. nu ma nu ma mën a fexe ba duñu rus. nu ma mën a fexee ba ñii du ñoom gàcc ci sama jëmm ji ci loolu laa gën a concentré wu ci ay lancer ay peg taluma ko sax mhm. yaa alors ci conseil bi ñu gis euh, lu nice yow ak Ngaaka Blindé defoon ngeen ko grand théâtre Home def nañ ko grand théâtre def nañ ko ci show bi mu doon def arena bi arena bi def ngeen ko fii tamit boobu est-ce que da ngeen koy répété wala freestyle moom xam nañu freestyle mën nañ ko yee ci mhm. guddi sax mu yeewu mu def ko freestyle yow aspect boobu noonu xamoon nañ ko xamuñu ko woon ci yow mais ba nga ko commencé di ko def nii nii. Ah. waaw parce que man yàlla dafa dogal ni mbalax man laa buy buy buy buy bëggee rappeur yi mm-hmm. man damay dund rap man damay cons rap may àndal xam nañ ko dama koy dund baax ngaa xam na loolu bu baax. Mm-hmm. parce que boo gisee li tax mu ma ci woo xam na ni loolu lu nekk ci man la ndax damay dund rap mm-hmm. ndax balaa maa def musique mbalax rap laa njëkk def man ak sama ay frère ñoom ñuy rap man may solo donc ñu bokk géejawaay ma koy nuyuwaale. di ko remercier aussi ci jaar bi mu jaar ku ne xam na ni toj na stade bi donc mu nekk suma xarit bërki démb lañ jógee man ak moom Côte d'Ivoire ci benn festival mu nekk suma xarit nekk suma gaayen xam nga mu ñëw en tant que xarit mais mu ñëw en tànk que doomu géejawaay parce que xam na ni doomu géejawaay moo doon représenté drapeau drapeau musique sénégalaise feneen quoi ñoom liiru jaan xam may gërëm géejawaay gépp jàpp ci affaire yi Balla Gaye 2 Boucher xama suma yaay mère Diagne ba Fall Iba Sey sama yaay nenn taal Malick Gakou ay dara ñëpp dañ ci jàpp bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. Mhm. donc euh, waree fam la def parce que moom heure bu mu xewlee gis ngeen damay dem. Mhm. donc c' tout à fait normal bu ma xewlee mu ñëw. ma koy remercier waale bu baax a baax Ngaaka Blindé. nous mhm. avons Ngaaka Blindé gis nañ Demba Gissé ñëw na. Demba Gissé aussi artiste suba teel ñëpp ñëw nañu. waaw Demba Demba aussi c' est mon xarit la nit ku mën a wax lu baax. nit ku mën a wax lu rafet. foo seetaanee interview am da nga koy nawloo parce que lu rafet lay wax lu baax lay wax lu mën a luy luy defar Sénégal lay wax moom it ñu ma ma koy remercier bu baax a baax ci teew bi mu teew ñëw dooleel ma. teew bi mu teew ñëw soutenir ma parce que aussi ñu fa nekkoon aussi ay fan su Sidi lañ mais tamit ay fan su ay fan su Demba lañu. ay fan su Bas lañu ay fas fan su Ngaaka lañu fan su fan su lañu fan su euh, euh, kii. Sidika Bass Thioung Sidika donc c'est Sénégal quoi. waaw c'est le Sénégal quoi ñu fa nekkoon ñëpp dañ fa taxaw pour béggee musique Sénégal. donc maa ngi leen di béggewaat bu baax artistes yi fa jaar yëpp képp ku fa jaar rek maa ngi lay nuyu maa ngi lay remercier. Mhm. mais am na artistes yu frustré comme gis naa si ñoo xam ne ñu ne woowoo leen téléphone yëgaloo leen ko. Mhm. ak yooyu noonu day géey tey gis naa ko sax mu koy. man man man du ma tontu ci yooyu. Mhm. waaw parce que maa mag loolu ko mais man yàgg naa demal artiste invité wu ma. man yàgg naa demal artiste mu toog invité artiste yëpp ma gis ne artiste la ma dem dooleel la te invité woo ma donc am na ci yoo xam ne du ma ci tontu parce que mag da ngay nekk mag donc wala nga nekk xale quoi man du ma attardé wu ci détail yooyu mais li may wax ku ko seetaan di nga xam yàgg naa demal nit te yëkkatiwul téléphone am woo ma que mu nekk naqar que mu nekk bànneex damay yëg ni lii sama wareef la ah kii de géej waaye la dëkk lii suma wareef la mu dem wala nga nekk ci naqar wala nga feebar wala dara ma yëg ni diw dafa feebar te te te te ah feebar mu bokkut ak dara même buñ ma ko waxul ma yëg ko ma taal sama oto fekk si la ba fi nga dëkk ñëw toog nga ne ma ay diw ah man de kontaan naa man la sama wareef laa def yow waroo feebar may toog sama kër wala nga am xew may toog sama kër ak lu mu munti nekk soirée rek lu mu munti nekk yàgg naa wuy ji nit te woowu ma donc bu fekkee tey ji am na ñu ko gisee noonu seen seen seen seen état d'esprit la ñu waxee rek te loolu tamit kenn mu ci dara quoi ñëw sans pour ko parce que dama interview yëpp dama damay bañ lim parce que dañu nekk ci dëkk boo xam ne dafa waaw dafa métti pour communiquer mm. ah da ngay toog di communiquer sax mais dangay dangay da ngay da wu quoi da ngay da dafa métti communiquer parce que boo wax boo tuddoon ñii tey ñii mere la boo tuddoon ñii ñii ne gis nga de daf ma mere mais je préfère bien ma ne képp kuy artiste di suma nawle invité naa la ci bis bi même boo ñëwut même boo ñëwut boo nekkee Europe wala nga nekk foo mun munti nekk di nga xam ne ah mi ngi mel ne ma ne képp kuy presse nekk ci Sénégal invité naa la mais jarul may tudd Sénégal wala kii mais bu ma ne presse comprendre nga waaw comprendre xam nga tey ji man bu ma ne bi yëpp mm-hmm. lan moo tax yéen saa artistes yi bu ñu ne presse bi yëpp yow nga gis ci sa bopp parce ah. que ci presse bi nga bokk ah, mais il faut merci beaucoup mais léegi il faut nga taxaw lim ñëpp te man yàgg nañ toog ne invité naa ñëpp invité nañ artistes yëpp ma jug man dem mais parfois ak gars yi doo comprendre te doo xam tamit lii ñuy def lan lañ ci jublu. da ngay gis ku génn def xama wala nit woo la ne la gis nga li diw wax mais man duma déglu loolu. xale laa maa ngi ci sama yoon maa ngi ci sama digg carrière damay concentré wu ci sama carrière. ma bàyyi ñii wax ñi wax. man ma continuer sama liggéey. Mm-hmm. si si début bi maa ngi koy wax euh, capacité 5000 places place la Iba Mar di jël mm-hmm. euh, mën na ko ëpp sax mais ñi fa nekkoon xëy na ëpp nañu sax 5000. <laughs> 5000 mm-hmm. personnes. Euh, mais dañoo gis bontu stade bi dañ ko dañ ko daaj xanaa nit ñi bëri woon. wala fugg bi la wala. waaw benn instant nit ñi dañoo surtout bi ma egsee. donc may jéggaluwaat ñi nga xam ne aussi dañoo jënd seen billet ba pare mënuñu dugg. mooy ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci ci lu wër stade bi. mais dafa tolloon benn moment boo xam nit ñi dañu ma xaar a xaar xaar ba sonn bi ma egsee nag dugg xam nga porte bi ñëpp ma bandoo xam nga mu doon affaire boo xam ne affaire bu ma marke la parce que dafay dafay wane ni rek que ni eh, ku war a góor góorlu laa waa parce que nit moom mën nga teg say baaful mën ngay teg sa sono teg sa lumière teg say écran teg lépp mais doomu aadama yi kenn mënu leen a loué. Mm-hmm. li nga jëflanteeg ñoom rek lañ lay fay te ñoom gis nañ ni. xale xale bu xale bu ñemee liggéey laa xale bu góor góorlu ci sama carrière la hmm. parce que trois ans quatre ans de carrière tey jii fexe naa ba bokk ci histoire musique sénégalaise hmm. quoi qu'on plus dire kenn mënatuma ci génne marqué naa ci sama empreinte te lépp li ma ko may rek mooy liggéey quoi donc maa ngi leen di maa ngi leen di massawuwaat ñi fa ñëw xam nga ñii du jënd seen billet mënuñu dugg ñii ñëw fa depuis 16 heures te man maa ngi yéeg une heure matin hmm. sedd Allahu am na benn am na benn maire boo xam ne maa ngi koy nuyuwaale peut-être bu ma seetaanee dina ma dina xam ne moom laay waxal maire bi Kër ma saala dëkk xaw ma yëmbal mais mi ngi fa ñëw depuis 16 heures donc ñooñu maa ngi leen ma masaw ngir suma jëmm ji ñàkk solo ji maa ngi leen ma masaw bu baax baax a baax di leen wax ni bëgg gu ñu ma bëgg rek su ma mënoon a wër kër yëpp damay wëraat kër yëpp yëpp yëpp ku ne ma remercier la. mais donc kon ko maa ngi nii toog ci presse bi te ku ne xam ne Sénégal àddunaa koy seetaan mm-hmm. maa ngi profité di leen remercier waale ñoom ñëpp di leen masaw di leen baaluwaat ak mm-hmm. waaw alors fii fii may fii may du ma jeexalee ko sax ci concert bi mais avant dernier point ci concert bi euh, boyal am gis naa ko fa di def ay affaires est-ce que aspect mystique bi tamit bokkoon ci concert bi. man yëguma dañu doon boyal ci buntu stade yëguma ko quoi man li ma yëgoon mooy dem naa suma kër sangu naa salu naa taal naa suma oto. dugg naa ci dem naa concert ba. Mhm. li ci des nag peut-être xama ñu doon wax làmb noonu. xaw ma li ci des peut-être ñi fa nekkoon ñoo gën a mieux placé pour expliquer ko. Mhm. parce que man gisuma ko image yi rek laa gis nii comme ni ko nit ñi gisee man li ma geroon mooy lu ma sol ak nu ma woyee pour bégal nit ñi. Mhm. li ci des nag moom. comme ni ko nit ñi gisee rek xaw ma sax xaw ma mais ñi koy ñi koy wax xam nañ ni liggéey tamit bokk na ci ah. waaye liggéey bokk na ci de amal combat sa adversaire di di di entraîner yow nga tëdd sa kër rek naan noo ci kii laa ko teg dangay ngay jug nga dem entraine dem saal yeewu fajar dem dunya entraîner ngir nga mën a jàkkaarloo ki ngay jàkkaarloo donc mënuma am adversaire bu toll ni biir si dakaar àdduna di ma xaar monde bépp di ma xaar ma tëdd di ko lonk foofu. Mhm. fii nag Sénégal la ñu nekk dañuy ñaanlu. parce que ku téeméeri bët ak. Mhm. àdduna bépp loolu laa nga. ku àdduna xam nga monde bi yëpp di la seetaan c' est tout à fait parce que nee nañ cat bu rayul rek semmal mhm. c' est tout à fait nga aar sa bopp c' est tout à fait sa yaay ji la ëmb juróom-ñeenti weer jur la fi mu la war a juree sa est tout à fait nag mu mu mu mu utal la ay muslaay ñaanal la sa sa sa ay grand yi fi nekk ci label bi ak ñi nga sa dëkkandoo am di jàmm yi ñaanal la lépp tam ba pare bis boo wootee ñëpp ñëw da ñaan yàlla ñi ñi ñëw ci jàmm dellu ci jàmm kenn bañ a gaañu ñëpp am tawféex loolu rek lañu ci jublu woon te it fexe nañu ba ñëpp ñëw nañu ci jàmm si nañ ñibbi nañ ci jàmm déggoo ci benn blessé wala koo xam ne gaañ nañ ko wala dara loolu lañ ci doon ñaan yàlla te am nañ ko quoi. Mhm. parce que tamit bu réussir woon total après nga dégg ci ay gaañu gaañu ak li après day métti ci xol donc liñ ci jubloon mooy réussir nañ ñi ñi ñëw nañ ci jàmm ñibbisi nañ ci jàmm mhm. alhamdulilah. Mhm. waaw euh, concert bi tamit euh, aspect positif bu ñu ci remarqué son bi lumière bi franchement. Euh, defar nañ ko ba mu ba mu ba mu nice. Mhm. ba mu tolloog bokk xaw ak ak bees mhm. <laughs> yi mais nice na quand même nit ñi nit ñi apprécier nañ ko. loolu lañ ci mais bu bëri tamit xaw nañu décrier un peu ci concert bi aspect politique bi. aspect politique bi kii tëgg du farul ci pour quoi si di Diop may Bamba Fall mu yéeg ci kaw podium bi di di politique ak yooyu noonu. ñooy tontu ñuy wax loolu. bon man tëgguma concert bi te ñu bari loolu la ñu kii dafa am waa euh, benn benn benn groupe bu tudd LP Events ñi ngi dëkk Fass ñoom ñoo ñoom ñoo ñëw fi seet si suma label muy suba teel waxtaan ak suma producteur ñu juboo ci ay kàddu ñu yëkkati seen xaalis fay ñu ànd ak ñoom ci bis bi liggéey ci ku ne nag gis na ni suba teel moom moom euh, booy liggéey ak moom daf lay jël xaw la sax reculer jëlee affaire yi dënn parce que benn essence suba teel rek nga doon dégg. suba teel suba parce que ñun noonu lañuy ñuy liggéeyee nit ki bu yëkkatee xaalisam fay la il faut que nga jël drapeau bi porte ko defaral ko ba mu kontaan. donc ñoom ñoo dëkk foofu Medina la ñu dëkk Fass c'est tout à fait normal ñu sargal seen papa muy Bamba Fall. te man ak Bamba aussi yàlla dafa dogal te diggante papa ak doom la. et Bamba bu fa ñëwee Medina gépp fàq ñëw dooleel ko xama les femmes sans frontières xama ànd falaat Bamba Fall les roses Bamba Fall. nit ñi fàqee fu nekk ci Médina bépp génn ñëw dooleel ko mhm. et c'est à fait normal nag mu ñëw yéeg ci kaw seen bi remercier ñooñu mhm. parce que guddi googu ñëpp bàyyi seen yitte bàyyi seen i nelaw ñëw mi ngi mel ni man lii may def nii maa ngi nii toog di remercier sama ay soppe mhm. keroog ci kaw seen bi remercier naa sama soppe yi moom mu ñëw vraiment ànd ak Médina gépp ñëw dooleel ko ah mënul ñëwee noonu rek après wàccaat dem ñibbi moo tax mu yéeg pour wan ni ñi ko gunge que dama leen a fonk moo tax mu yéeg ci kaw scène bi remercier leen. remercier tamit ñi nga xam ne ñoo ko tëgg tuddee ko bis bi waaw. ñu ñu ñu bëri nag nee nañu nee sii Sidy loo kon yow nii tontu naan danga leen bàyyi danga faral Bamba Fall moo tax nga bàyyi ko loolu yëpp. Mm-hmm. c'était man politique gu ma xam nga man yàlla dafa dogo je suis un artiste. ñu naan ah euh, politiciens dañ leen di utiliser yéen pour campagne. non non non non non ñun ñun ñun ñun wax dëgg neex yàlla. est-ce que Sidi Diop dina bàyyi wax dëgg yàlla. ñi du question sax pour utiliser wala dara parce que tollatuñ foo xam ne dañ lay utiliser wala dara. Mm-hmm. du du buñ ko tudd du question utiliser mais man ci li ma mën a wax quoi bañ sori bañ a xuus mm-hmm. euh, mooy Bamba sama papa la mu may xoolee bëtu doom ma koy xoolee bëtu papa. bu dul sax ay concert dañuy déggante xam nga bu fekkoon ay affaire concert la wala ay affaire politique ak affaire wala lu jëm ci kii mais même budul dara dañuy déggante dafa may soxla woo ma ma ñëw damay am sama aajo wax ko ko mu fajal ma te nag soxna si on se di la vérité koo xam ne moom boo xewlee mu teewal la moom buñ ko tuddee da nga ko war a teewal <laughs> koo xam ne boo amee aajo wax ko ko mu faj ko donc moom it bu ñu ko tuddee bis c'est tout à fait normal ma ñëw teewal ko mm-hmm. loolu rek la ko mais du ay utiliser wala dara ndax ma wax dëgg yàlla dépassé nañ fu ñuy utiliser waaw am tamit euh, mm-hmm. man dama fi nekk pour Sénégal man dama fi nekk Sidi Diop pour Sénégal dama fi nekk pour le monde entier mm-hmm. parce que sama musique yemul Sénégal lu ma war a la yóbbu ko partout dans le monde kon dama fi nekk pour Sénégal mais damal na bu yëpp passé dañu am ay lien yoo xam ne lien diggante papa la ak doom doomam bu tudd duudu présenté ñu muy suma papa man may doomam mm-hmm. heure bu ma soxlaa damay bàyyi sama yitte wuy ju ko ndax heure bu ma ko soxlaa day bàyyi ay yitteem wuy si ma mm-hmm. c'est ça Euh, si conseil bi tamit gis nañ si benn kado buñ la ci may Matar. waaw Subatel may la ko benn oto ñu bëri naan Bamba Fall moo ko may jaar jaar ci Matar teel am na ay ay rumeur yu daw ci. non non non leeralal oto boobu tamit. loolu loolu lim may may mi ma koy may à part Matar lim ma may moom ma ko may à part. Mhm. Matar Diop Subatel suma producteur moo ma may oto bi. Mhm. moo ko jënd ci xaalis bu bari may ma ko jóoba juba roqee Arona Ndiaye. ma koy nuyu bu baax a baax a baax te du ma ne gulet waaw du ma ne gulet barke Serigne Saliou Mbacke may na ma lu ne c'est que nit koo xam ni nit la buy def ci suuf buggul sax ngay toog di ko tudd parce que keroog rek mi ngi naan xama jaru sax ñuy dis ñuy discours ci oto bi lu bari continuer musique bi parce que ñi fi ñëw loolu moo leen fi indi mais du ma ne gulet nit ku baax la nit ku yàlla baaxal muy suma mag te du musique bii moo ñu boole peut-être ci musique la ñuy liggéey mais billaahi wallaahi jàpp ma ko ngir musique dama koo jàpp comme sama mag ju ma bokkal ndey ak baay. seede allahu bu demoon ba bàyyi musique man ak moom dañuy ànd su ma demoon ba bàyyi musique man ak moom dañuy ànd donc lii mu def nii maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla nañ dund ba dik ko fay yàlla nañ dund ba dikk ko jox ay caabi caabi caabi oto yàlla nañ dund ba dik ko jox ay billet màkka waaye tamit yàlla nañ dund ba di ko ko ba di ko ko fayee ay kër ndaxte nag yéene nañ ko ko ci suñu xol te yàlla yéene rek lay fay mais nag li nekk ci suñu biir xol moom mii di ñu seetaan xam na ko ma Matar xam na ni fu bëgg yam rek bëgg naa ko ko fu yéene yam rek yéene naa ko te yàlla naa dund ba ma koy gunge ay Bercy de Paris Zénith de Paris yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def waaw te yàlla na te yàlla yàlla nangu ko <laughs> carrière gis nañ ne lu bëri euh, yaa ngi koy def léegi lan la lan la apporté loo xam ne sa carrière yi bari na xam nga maam Abdou Aziz Sy Dabakh danaan wax lu am solo mm-hmm. danaan wax ay xale bu ñuy liggéey nañ ci boole ay mag bu dee doole bi xale yu utiliser ko bu dee xam-xam yi mag ñi joxe ko mm-hmm. man nag bi may doog a débuté maa ngi doon débuté ak sumay xarit suma ay morom yoo xam ne ñoom ñoo ma gunge ci mariage yi ci mbapati ci mariage yi ngénte yi ñoom ñoo ma ci gunge ba affaire yi am fu mu yéeg vraiment Sénégal gépp xam ma mais tamit ñu dem ba benn moment ma xam ne soxla naa ay mag yu ñëw nekk sama dimbali ma ay mag yu ñëw jàppale ma ay mag yoo xam ne dañuy ñëw conseiller ma ëmb ma yàlla nag xiir ma ci Matar Diop suba teel ñu am feeling liggéey ba pare tamit ma óolu ko loolu mu nekk nit ku baax nit ku généreux nit ku humble nit ku modeste yàlla boole ñu ñu liggéey waaye tamit yàlla dogal ni bi ma fa duggee aussi euh, suma yaakaar tasul mi ngi ànd ak man ci fulla mi ngi ànd ak man ci ngor yenn saa day xuloog man laa la wax xuloo yu metti teelal tëdd teelal yeewu demal studio demal répété gis nga ni la senegale yi def góor góorgóorlu nga delloo leen loolu ndax sii di sénégalais yi xaw ma xam nga ko xaw ma xamoo ko mais dañu laa bëgg te yéene la dara lu ñaw bu ñu sañoon lu ndaanaan am ci musique Sénégal di nga ko am yow yaa war a gën a liggéey gën a xoolaat sa taxawaay nga liggéeyal ba jël sa bakkan teg ko ci ngir mën a béggal askan wi nga xam ni dañ laa bëgg te yàlla tax te ngay xale yooyu rek la may conseil maanaam ci lu am fulla rek la may dugal te nag bi ma duggee suba teel ba tey sénégalais yi ñu ngi gis ku yokkul yaa wàññi te nag macha allah mu fi duggee ba tey lu ma génnee it la loolu moom on a disconvient même pas. loolu moom dëgg la <laughs> alors bu ñu génnee si loolu nag euh, amoon na ay temps yoo xam ne nag euh, si di peut te du mosuma la dégg nga wax si mooy duñ euh, naan Sidi Diop day def marquage à la culotte waa lu mu génnee tey mu génnee ko mu copier ko tey copier ko xam nga genre ñu lay ñu lay taxé si loolu noonu époque yooyu nan nga ko doon nan nga ko doon dundee. non fi moom mm, baax sonn. Bonson gars yi parfois ñooy interpréter nu leen neex. mais donc fi mu kenn ku nekk am nga droit xam nga xalaatee nu la neex quoi mais li ma doon wax rek laay wax Wally c'est mon frère c'est mon sama grand frère la man raqam la suma nawle artiste la suma copain la. Mm. loolu laa ci mën bi nag. ah ci côté musique bi mi ngi ci bàyyi waaram. parce que mel ni game la. ah la. showbiz la xam nga showbiz la parce que ci musique nag la ñu nekk quoi mais moom mi ngi côté di bay waar. maa ngi sama côté di bay waar xam nga comme li ma la wax rek xam Sénégal moom dafa xaw a compliqué communiquer je préfère bien sax ñu bañ ci sori quoi mhm. mi ngi côté di bay waar maa ngi sama côté di bay sama waar et c'est tout à fait normal xam nga yii di am parce que nag lii ñoo ko fi mujjee dégg mhm. musique sénégalais bi mu commencé ba tey yaa ngi dégg diw ak diw donc ñun ñoo ko fi ñun ñoo ko fi mujjee te it euh, maa ngi koy ñaanal yàlla jàmm ak salaam ak carrière bu yaatu waaw ah, te xam naa nit moom moom la ma yéene quoi. mais euh, critique yu la doon ah, mais mais nit ñi kenn mënu leen mais kenn munu leen a très critiquer. Mhm. nit ñi kenn mënu leen a très critiquer. boo defoon lu gën a baax di nga gis ñetti nit yu toog fee di ko di di ko critiquer. Mhm. donc nit ñi kenn mënu leen a critiquer mënuma contrôler nit ñi li ñuy xalaat ak li ñu war a wax. Mhm. mais man maa ngi sama yoon di liggéey. te nag quoi qu'on puisse critiquer li muy bari bari ñi nga gis ni maa ngi liggéey. loolu tamit war nañ ci wax. gars yi parfois lu leen lu leen arrangé rek la ñuy xool mais tamit ak lu munti xew rek maa ngi liggéey. parce que liggéey moo tax ñu may tudd di tudd diw. su ma liggéeyul woon bi nga may fekk golf géejawaay ñuy def interview su ma liggéeyul woon du ñu dajawaat fii tey <laughs> est-ce que may dégg bu fekkoon damaa tëdd rek répété wu ma dugguma studio génnewuma lu neex waxuma lu nit ñi mën a dégg wala xale yu fowee ko ci TikTok beeg seen ab yeeg fépp wala clip yu rafet prouver kenn du ma tudd tudd diw. mais est-ce que bëggoon tamit saboter un peu kii woon. non non non non kooku du man man musique laay liggéey musique moo ma soxal duma ma lu jëm ci musique. Mhm. lu dul musique sax duma ma la saboter waxuma la ak lu jëm ci musique. Mhm. yaa. alors euh, fu ñuy jeexalee euh, succès bi. Mhm. succès bi nee naa depuis 2019 ba tey. tii di mi ngi mi ngi tàkk mu ngi ci kaw comme ni nga wax sànq. yàlla na yokk <laughs> yàlla yokk. comme li nga wax sànq rek ne musique bi mi ngi dem te fu mu nekk nii moom wax dëgg yàlla duñ tudd ñaar ñett. te duñ mhm. ci boole di jot imposé nga sa bopp liggéey nga ba ba tey euh, nga bokk ci ci ci ni ñuy ni ñuy tudd ci musique sénégalaise. Mhm. Euh, succès bi nag nga koy gérer. waaw ñu ngi koy gérer ah. koy gérer ak suñu staf ñu ngi koy gérer ak suñu label. ñu ngi koy gérer ak suñuy xarit suñu àndandoo. suñu suñuy copain ñu ngi koy gérer naturellement quoi parce que man yàlla dafa dogal ni succès diisul sama bopp quoi comme mbaxane bii ma sol laa ko def parce que boo ko diisalee rek da ngay diib lu oyof day tëmb lu diis day diib donc man je préfère bien ma oyofal ko ngir ma mën a nekk ci kaw mooy su ma yeewoo maa ngi seeti su may xarit suma kër sala sama xarit di fréquenté maa ngi àndal ñi ma war a àndal mooy suma ay copains suma ay amis d'enfance ñi nga xam ni depuis le début ñi ngi suma wet maa ngi ànd ak suma waa label ñi nga xam ni ñi ngi sama wet di ma dimbali di ma jàppale ma bokk ñoom kër gi muy suba teel mm-hmm. li ci des mooy maa ngi répété maa ngi liggéey nii laa dundee succès bi. ni nga ko dundee. waaw xam ne sa après ko changé def ko Saalum. waaw pourquoi jéere Saalum. parce que jéere Saalum la dëkk. waaw hmm. que ki ki ma ci woy Saalum la dëkk Saalum Saalum la. Mhm. moo tax ma jël affaire yi ñambaase la ci waa Saalum gépp mhm. parce que am na loo xam ne moom boo ko defee rek mu ne parce ki ma ci woy sama xarit la mooy sama percussionniste abu Salam te Kaolack la dëkk te ku wax Kaolack wax Saalum Saalum yi. Mhm. te ku wax Saalum Saalum yi wax xam ni dañoo am seen touche personnelle ak seen mën a woy macha allah ma leen di nuy nuyuwaale bu baax di leen wax nañu ma xaar maa ngi fa war a ñëwaat foofu bientôt te dinañ jot dal bi léegi léegi incha allah mhm. ñi ngi fay waajal lu mag donc moo tax ma def ko Saalum remercier waale ci Saalum Saalum yëpp def ci hommage Saalum Saalum yëpp te gis naa ni ñu apprécier morceau bi te nañu ma xaar incha allah léegi clip bi génn. d'accord lan lan la ñu mën a xaaraat euh, ci Sidi Diop mis à part concert bi dal na lan la fi mën a defaat loo xam ne lu mag nañu ma xaar parce que maa ngi waajal date phare bu mag sax hmm. waaw maa ngi waaj suma album parce que Europe tamit Sidi defe naa duñ la dañu ma namm dañu bëgg gis dañu ma namm mhm. dañu ma namm parce que deux ans de confinement lañ toog tëgguma Europe mhm. donc xam naa ni sénégalais yi ne ci diaspora bi instant yi namm nañu ma loolu waaye nañu ma xaar te xam ne maa ngi ñëw incha allah bientôt mais aussi maa ngi waajal suma album boo xam ne mi ngi war a génn incha allah d'ailleurs sori nañ ci trop li ci des peut-être ay ñaar ñetti morceaux moo ci des après nag ñu ñu présenté ko Sénégalais yi euh, may profité di leen remercier waale képp koo xam ne rek toogoon nga ci concert bi képp koo xam ne ñëwoon nga képp koo xam ne jàpp nga ci bis bi. Mm-hmm. man Sidi jot maa ngi lay jox sa wàccuwaay ki ci mel ni sama baam sama papa Bamba. Mm-hmm. maa ngi Abdoulaye Diouf Sarr maire Yoff monsieur le ministre ah, ñoom Abdou Naar chef protocole bi ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax maa ngi leen di sant maa ngi leen di jaajëfal euh, waa Géejawaay maa ngi leen di nuyu di leen jaajëfal waa Tiwaawan mais aussi surtout sama waa Tiwaawan moom gis am na kenn ku ma si ku ma si xam waa Tiwaawan daf leen yëg moo tax. waaw parce que nag man su ma yëgul waa Tiwaawan goreewu ma parce que Tiwaawan euh, falaa màggee. bi ma jugee Kébémer aussi ma leen di nuyu bu baax ndax Kébémer laa duggee ma leen di nuyu di nuyu aussi waa Tamba. gi nga xam ni fa ganee àdduna euh, sama dëkku ma leen di nuyu bu baax a baax a baax baax waa Tamba sama mbokku yaay yëpp maa ngi leen di nuyu. Euh, di nuyu aussi waa Kébémer ndax foofu laa duggee école. ñu jox ma sama tante ji ñuy wax Marie Diop ma koy nuyu waale bi ma jógee Kébémer nag ñëw Tiwaawan waaye nag Tiwaawan nag laa commencé affaire yi nag may xam ne lii war naa ko def métier. muy yeewu ci man. di yeewu ci man muy musique bi ma commencé nag dëkk kër Cheikh aw bala ma leen di nuyuwaale bu baax ah Tivaouane gépp dama leen a yëg parce que ñoom dañu maa yëg te su may joué barki Dembo Ndiaye gis ngeen ni ñu mel Tivaouane waaye aussi di gërëm sama président si di famille muy maam fàllu ku sonn ci suma jëmm ji concert bi bi mu desee quinze jours la gëj a nelaw nelaw yu doy moo defar t-shirt yi ci xaalisu boppam moo defar flyers yi ci xaalisu boppam pétales yeeg fi ma jeunes yeeg yëpp moo ko jënd ci xaalisu boppam donc ma koy ma koy nuyuwaale bu baax si di famille Koungheul jaarama bu Kaolack jatu sama doom maa ngi leen di nuyu waaye maam Fallou waxal ma si di famille yi nekk Sénégal gépp sama xol sedd na doole jën nag ndox la mais man suma doole yéen la te ni ngeen ma ko gungee ci Bercy bi yàlla nañ dem ba ngeen ma koy gungee Bercy de Paris wala Zénith de Paris wala Dock Pullman yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def wala Wembley fu ko gën a sori yàlla na ko yàlla def ci barke yonent bi kontaan na encore une fois ci waa Sénégal mooy dernière question bu takkee mooy ban mooy mooy ba Saalum tey su ma la doon wax nga wutal sa bopp surnom si musique bi lan lañ jabar a mën a woowee comme ça su may bind bi hmm. ma ma ma ma bind ba Saalum Saalum succès bi nan ngay mën a wax tey parce que rappeurs yi hmm. soo leen laaj ñoom ñu naan maay king bi hmm. ñoom dafa leer ñoom dañuy leeral ñoom mais yow tey su ma la mënoon tey su ma la waxee samay texte bu may bind si Sidi Diop tey ah bon mu waxee artiste wax artiste en tout cas xam naa ni xam naa ni xam naa ni c'est un phénomène ah, duma sax bu ndaw. c'est mhm. un grand phénomène. en commun. waaye grand phénomène waaye phénomène bu mag laa. Mhm. parce que boobu ba tey xool nga yi ma génne te yu ma génne teg ci fecc mhm. yamuma ci génne. ba ci abu Sala Diéré bi gis nga fecc bi ni mu kartone mhm. te nañu xaaraat yeneen a ngi ñëw. nga xam naa ne daal incha allah yii nekk nii ci ginnaw moo dàq ñeenti yoon abu Sala Diéré bi. Mhm. te bu egsee Sénégalais yi <laughs> te bu egsee Sénégalais yi dinañ kontaan trop trop trop trop mhm. trop trop trop. maa ngi leen di nuyuwaat. maa ngi leen di jaajëfalaat ah di nuyu nag le monde entier. ñu ne ci diaspora bi doon ko seetaan en direct maa ngi leen di nuyu di leen wax ni Sidi Diop mi ngi waajal ñëw incha allah seet si leen. di nuyu tamit ñi nga xam ne mooy suñu xalifa généraux yi yàlla may leen gudd fan ak wér bàyyi leen fi kilifa diine ak aada yi képp koo xam ne ñaanal nga ma ci bis bi man Sidi Diop maa ngi lay jox sama loxo di la remercier ah di la di la di la di la di la di la wax kontaan naa waaye aussi di di gërëm sama yaay nga xam ni moo njëkk ci man moo mujj ci man mm-hmm. sama yaay ji jigéen ju man góor maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu sama bàjjan Tamari sama papa Ousmane ba sama papa Omar Diop sama bàjjani yi aw ma seen fay sama famille yaay sama tante yi aw ma seen fay suma raq bu jigéen ma mi jóg maa ngi nuyu ñëpp sama staff suma manager ñëpp suma limee juum di wax nag lépp lu ñu fi wax loo xam ne dafa dëng wala lu jagadi wala lu neexul ki toog di seetaan man di Diop maa ngi lay jéggalu di la wax ne nit rek laa mën naa wax ndax wax daa metti ndax wax bu yegg sax yàlla moo ko moom mm-hmm. donc lii ma fi wax yëpp bu fekkee am na lu ci lu ci neexul kii toog di seetaan maa ngi lay jéggalu bu baax a baax te xam ne defar rek lañ ci jublu woon di ñaanal yàlla ñëpp jàmm waykat yëpp am jàmm euh, artistes yëpp am jàmm ndax ñu ñëpp ku ci am sa njaboot ngay yóbbu te ku ci am ndam tamit musique gu Sénégal moom ndam mm. ndax boo xoolee waa Nigéria waa les Ivoiriens yi yeneen dëkk yëpp seen musique mi ngi mi ngi jug seen musique mi ngi dox ñu ngi koy exporté fu ne ci àdduna te boo yi ma gis ni génération bu bees man xam naa ne mën nañu yóbbu musique bi fu ko raw mm. wu ci yóbbu musique bi fu ko raw ñu bañ a concentré woon te ci suñu biir waaw ah, nañ nañ ko yóbbu fu raw quoi mhm. sénégalais loolu la ñuy xaar ci ñun te booy mhm. am nañ potentiel te mën nañ ko def mhm. ndax dañoo man a woy macha allah maa ngi béggee ñëpp maa ngi jaajëfal ñëpp merci beaucoup te incha allah xaar leen ma ci beneen date faar bu ngand ngand ngand ngand à très bientôt non bàyyi ma def ci code <laughs> mais léegi ngeen jot ci ñu ngi lay remercier tamit saa yu ñu bëggee invité tamit euh, dañu koy yombalal surtout Matar Matar moom aw ma aw ma fayam daf ñuy yombalal hmm. liggéey bi trop trop saa yu ñu ko soxlaawee moom hmm. mu may ñu ñu ñu gis ak artiste hmm. labelam euh, di la remercier di la wax merci encore merci desewaat yoon boobaa fekk ay bersi la ñuy waxtaane amiin yaa rabbi amiin na yoo xam ne nag euh, abordé wuñu pour mu leer internet yi xam dañ naan lu tax waxoo si lii waxoo si lii am na yoo xam ne dañoo ñëw tey pour def débriefing conseil ah, donc beneen nañ am beneen mmh. occasion. c'est plus important merci beaucoup. merci à vous. Mm -hmm.